Omaro lañ ba xam Omaro dina wax euh, dina dina mën a ñëw sànni ci ay kàddoom ok mu ngi noonu per ñu ngi lay masaw li ñu bokk ñu ngi la koy masaw bu bu bu baax a baax a baax waaw internet yeeg ñëpp nag ñu ngi lay ñu ngi ñu ngi la koy masaw bi bi yëf yi amee ñëpp seen xel dem nañ ci Omaro te yenn yéen kàddu nga njëkk a yëkkati. ñu ngi sant yàlla bu baax di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un oto bii ma toog otoom la kii toog ci sama ginnaaw mooy soxnaam soxna Daaru Jara kii ci suma wet baara mooy chauffeur am moo ko daan dawalal yàlla nag moo ñëw dañuy wax inna lillahi wa démb ci 17 heures la daanu feebar daal di pikki crise ñu yenn ko indi fi fii lan fanaan ak moom ba bër set tey yàlla def ay dogal mu wuju suñu borom ñu ngi koy jaale àdduna sépp di ko jaale Sénégal gépp nga di ko jaale njabootam di ko jaale soxnaam di ko jaale ay doomam di ko jaale militant yi toppoon ci ginnaawam yépp ku ne nag man xam na sama diggante ak moom ndax man moo defar sama àddina tey bu ma sama nawle yi di amee ci man yaakaar jàpp ne war naa leen mën a dimbali yàlla ak jëmm ma ba tax na daal wéet naa lool. waaw ñàkk naa ku rëy ci man yàgg na maa ñàkk nag yàgg na maa ñàkk waaye tey ñàkk naa te xam naa ki ma ñàkk yàlla seere na ko ñu ngi koy ñaanal daal fa mu jëm yàlla gën fi mu jóge yàlla baax na ba suba ak jàmm incha allah waaw suba suba suba suba danañ def levée du corps bi incha allah ca principal bu nu fa jugee dénkaane yim ñu fi bàyyi loon ci waxtaan maag tawam bu góor bii Cheikh tasaay te nanu ko dëjal kër aawam du jara loolu mooy ndigal li kon na ko Sénégalais yëpp xamee noonu ba suba ak jër jërë ngeen jëf. mbokk yi xarit yi mu nekkoon Omaro mu Serigne Saliou di porte parole ci ki nga xam ne moom moo di Mamadou Yatassaye monsieur Dame si vous nous rejoignez ñi ngi fi nga xam ne moom moo di clinique Bellevue euh, Calze waaw su su Calze mu ngi fi Calze gisoon naa ko fi tout à kaay moom sunu papa la xam naa yëfi dina métti ci moom lool ah moom nag ku wax Calze di nga wax sunu moom papa Mamadou Yatassaye papa ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay masaw ah, di la ko di la ko jaalewaat wax naa ko Omaro tout à l'heure ne ko bi nouvelle bi amee xel yëpp ci Kalsi lañ dem ak Omaro presse bi yëpp bi ñuy dugal statut ñu ci bari yow ak Omaro lañ dugal parce que gis nañ ñi ngeen jege ak moom euh, métti na nag ñu ngi la koy jaale bu baax di leen ko masaw bu baax a baax a baax euh, tey jii yan yan yan yan yan yan oh, papa waaw tey moom baal naa la ko papa baal naa la ko masaw ñu ngi la koy masaw bu baax ñu la koy masaw bu baax yow moom sa sa papa la sa sa sa wayjur bu góor la te am na fu mu tolloon ci yow ñu ngi la koy masaw bu baax waaw ñu ngi la koy masaw bu baax baax par ma voix toute la presse ñu ngi ñu ngi ñi ngi koy compétir ak yow di la ko masaw bu baax dégg nga kay mi ngi noonu Mass Kalz ndeysaan waaw mu doon loo xam ni c'est des moment émouvants voilà voilà kay waaw waaw waaw mi ngi noonu waaw waaw waaw mi ngi noonu mi ngi noonu waaw c'est un peu douloureux c'est un peu waaw jërëjëf waaw mi ngi noonu mbokk yi comme ni ngeen koy gisee noonu euh, mu doon li nga xam ni moom moo di lu lu lu lu lu doy waar ah, muy ok mi ngi noonu mbokk yi Omaro mu Serigne Saliou Kalz ak tout la famille ñëpp daa di xaarandi rek corps bi comme ni ngeen ko déggee noonu information bi moom mooy que ni Yoff la dénkaane woon ñu denc ko fa te buñ koy defal ñaan maanaam sarax lañ ko def moom ëllëg ak jàmm nak la ñuy jël corps bi fële ci hôpital actuellement ñu ngi ci clinique Bellevue ci clinique bii nii la moom Mamadou Yatassaye euh, président directeur général Akweta Akwate Ara fii la mujj ñàkkee bakkanam mbokk yi tey nag famille bi ñëpp ku ñëw fekk ko fi waa ki ñuy seen ne muy dem waaw gis naa fi Cheikh Yata Saay di accolade di jooy ne yaayam la euh, doomam la waaw kële sol pile bu noir bi doom la ci Mamadou Yata Saay mais aussi Range Rover bu noir bi ngeen di seen oto Mamadou Yata Saay la comme ni leen ko Omaro waxee jabaram aussi moo nekk ci ginnaaw noonu tout à gis ngeen ko bi ñuy jël ki nga xam ni moom moo di Omoro mu wax que ni soxnaam moo nekk ci ginnaaw ak kii di doomam bu góor di taawam di Cheikh Yatassay donc ba léegi mbokk yi ñu ngi ci clinique Bellevue Dakar ci décès bi nga xam ni bett na nag ñu bëri information yi gënoon kii nag maas moom mooy que ni bokk na ci candidat recalé yi sa à dire moom bu ko bu yàlla dogaloon mu bokk ci candidat yi jongante euh, élection yi moom dañu koy dàqadi waaw loolu nag doon na loo xam ni moom mooy li conseil constitutionnel wax te wax dëgg yàlla euh, bu fekkoon bokk na ci candidat yi kon élection yi ngeen gis muy daw dañu koy arrêté ndax kenn ci candidat yi moo ñàkk bakkanam mais moom nag candidat recalé la woon moo tax ba léegi élection yi campagne nit ñi ñu ngi koy déroulé mais boo xoolee ci yenn candidat yi ñu ngi dugal ay statut ak ay poste di ko jaale famille bi yëpp di di ko naqar ak ñoom donc mbokk yi fàttali leen ba léegi ñi ngi ci buntu clinique Bellevue oto Range Rover bu bleu boobu ngeen di jàkkaar lool oto Mamadou Yatassay la soxnaa moo nekk ci biir ak taawam bu góor Cheikh Yatassay ak ki nga xam ne moom moo di euh, Omoro mu Serigne Saliou ak Kalz Kalz gis ngeen ko tout à l'heure moom mënul wax parce que paa bi dafa am fu mu toll ci moom waaw paa bi dafa sori ci moom moo tax euh, doon na loo xam ne lu lu lu lu doy waar la ñu ñu leen koy masawu rek. di masaw famille bi yëpp vraiment di masaw famille bi yëpp di ko masaw aussi Sénégal ñëpp xibaar bi bi mu amee rek la nit ñëpp di woote yéen ñiy woote nag ci téléphone yi baal leen ñu parce que nous sommes actuellement en direct on peut pas faire notre travail en même temps di wuyu téléphone donc xibaar yi ngeen di dégg rek moom mooy li am jarul woote di laajte ba xam c'est avéré ou pas c'est bien euh, officiel que ni kii di Mamadou Yatassaye moom moo fi jógee moom nag wax dëgg yàlla mu doonoon koo xam ni kenn dootu ko présenté parce que homme d'affaires la mise à part homme d'affaires bi homme politique la tamit mise à part homme politique bi homme social la koo xam ni dafa yëgatu ci social masse waaw ce qu'on peut tamit man jàgg naay dégg ay nit yoo xam ne aussi du Mamadou Yacine Saay mu ngi leen di jàppale te yàlla tax bëri na ay ndaw yoo xam ne teg na ci ñoom tànk mu ngi leen di soutenir le cas de Doudou le cas de Rama. ak wax na ko tout à waaw man euh, nemmeeku naa ci ñoom ay changement yi nga xam ne moom du Yaye Tassaye def na ko ci ñoom. da leen doon dimbale di leen soutenir di leen euh, defal li nga xam ne waajur bu góor ma ngi koy defal ci seen i doom. ndeysaan ñoom bokk na ci ñi nga xam ne man mun naa gis ne kat ñàkk nañu ñàkk nañu kenn koo xam ne aussi tamit ku baax la ci ñoom ku leen doon taxawu la. xanaa di ko ñaanal yàlla xare ko na suuf euh, si comme li nga li nga wax léegi nag mooy di am solo mooy euh, bu fekkoon ne euh, Mamadou Diatta Saay boole woon nañ ko ci candidat yi présidentielles yi dañ na doon repousser élection yi parce que loolu la constitution wax mu doon loo xam ne aussi tamit métti na ci candidat bépp bi nga xam ne recalé ou non recalé yi nga xam ne bokk nañu ci élection présidentielle yi. mu doon xibaar boo xam ni. moom moo fi amal ni mbokk yi fàttali ñu ngi ba léegi ci clinique Bellevue bu Dakar euh, fii nag wax dëgg yàlla ci ginnaaw institut Pasteur fii la ki nga xam ni moom moo di du Mamadou Yatassay euh, daal di defee soufflam bu mucc bu mujj ci àdduna daal di def malaise daal di fi euh, jëlee ñàkk bakkanam boo ñëwee tey fii nag di nga fi fekk famille bi di nga fi fekk ay collaborateur am di nga fi fekk aussi ay nit yoo xam